ab euh, ndaw soose nag euh, sapeur moom moo ko daal di jël euh, yóbbu ko police jot na ci ubbi ab l'enquête dañ koy tàmbale ak bi nga xam ne moom moo am tey ci suba ca Mbàkke ab camion virage moom moo daal di dal ci waa waaw moom moom tudd. Abdou Sarr Abdou Sarr Abdou Sarr Abdou Sarr Abdou Sarr la tudd. waaw liggéey rek ci ci course lañ ko fekk. Porokhane la dëkk mais ñëw fii daan doole moo ko fi indi. mais dëkkul fii sax ci bi. am ci moom. faatoo ci ci course lañ ko fekk. Porokhane la dëkk mais ñëw doole moo ko fi indi. mais dëkkul fii